mu nekk kenn ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénkoon liggéey bi ñu ko doon saytu ba mu agsi fii lépp yemb ñu fas yéene koo ubbi moom sëriñ Isaaxa moom sëriñ Basiiru bi mu ñëwee ànd naag sëriñ Mot Sahin ak yeneen techniciens yi nga xam ne ñoo yoroon li jëm ci liggéeyub jumaa ji lenn lu ci nekk sëriñ bi saytu ko xool ko xool fu ñu ci toll laata ñuy àgg ci àjjuma ci bés bi nga xam ne ci la sëriñ bi war a ubbi jumaa ji باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتات دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله مرتباته بلا انقفال بفضل منك يا الله رويت يا ذو الدارين مرتباته بلا انقفال بفضل منك يا الله رويت يا رافع الدارين مرتباته بلا boobu it noonee la ko amalee ci biti jumaa ji mbooleem bayal bi nga xam ne moo wër jumaa ji muy esplanade bi fenn fu ci nekk sëriñ Isaaxa Mbàkke jaar fa ñu leeral ko la nga xam ne moo fa nekk mu am ci mbégte lool ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne techniciens yi amal nañ ko ci jumaa ji ba liggéey ko liggéey bu mucc ayib waaye santaat ci taxawaayub mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon ak cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir liggéey bu am solo bi nga xam ne muy ndamal lislaam gi yëpp akamta yaa akamul baaxi bi kawn yaa saa bi ma qaaba min busraaka yaa allahu alaata yaa adlu ah.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 وخدت لي منك ما الغيب يا الله عسى الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لخير دهر يا الله عسى الأليم لاسي بان دسامته لخوت فلن أسير